xibaari biti réew yi. dañu koy dooree ak RDC di république démocratique bu Congo ay fukki nit ñu faatu ak ñeneen ñu réer ci benn bateau bu suux mbir ya nag bateau boobu nag daan daw diggante Goma ak Kalex bu ñu sukkandikoo nag gouverneur ba ma ngay xam ne ne ay nit ñu bari ñàkk na ci seen i bakkan am ñeneen ñu bari ñoo xam ne dañoo réer mër bu ñu sukkandikoo nag ci benn CD ma ngay xam ne ne am na lu téeméeri nit yu réer ñu dem ba Soudan ka fa nekkoon njiitu réew ma di Omar El Bashir jamono ji nag yóbbu nañu ko ci benn kaso bu nekk ca xaatum ay fan rek gannaaw ba ñu ko déjjatee ca nguur ga ay soldat yu bari daal di koy topp ba ca kaso ba sa kobbe di kaso boo xam ne fa la ñuy denc prisonniers politiques yi ñu nekk ca kuje ga nag di sàkku ñu daal di koy yoonal ñu koy toppee ngirum tee ak ñaaw yi nga xam ne moo amoon ca Darfour ci atum 2003 am ay nit ñu bari ñoo xam ne jot nañ ca ñàkk seeni bakkan ñu dem ba Mauritanie jàngalekat yi nekk ci njàngale mu digg doomu mi nag di sàkk ñu jox leen ay weer yu ñu leen ameel ko jamono ji nag nee nañ seen i boolu bu ñu kaay moo fees loolee tax na nag dañoo dañoo dagg cours yi nga xam ne nag dañu ko doon amal ña ngay sàkk ñu jox leen liñ leen ameel tey ñu yokkal leen seen i payoor ñu daanalee ko ak réewum gannaaw la gi amoon ci Notre-Dame bokk ci bërëb yi nga xam ne nag waa réew ma dañ koo fonk lool muy cathédrale bari woon na ay xibaar yu ñu ko doon jaarale nag ci réseaux sociaux yi te ñenn ñi wax ne bala lu mel ni benn nataal daal moo taxawoon ca kaw mbir yooyu nag kilifa yi weddi nañu ko ba mu set ne loolee dara amu ci jërë ngeen jëf mbokk yi di leen indiloon ci xibaari bitim réew xibaari dañu koy dooree ak RDC di république démocratique bu Congo ay fukki nit ñu faatu ak ñeneen ñu réer ci benn bateau bu suux mbir ya nag bateau boobu nag daan daw diggante Goma ak Kalex bu ñu sukkandikoo nag gouverneur ba ma ngay xam ne ne ay nit ñu bari ñàkk na ci seen i am ñeneen ñu bari ñoo xam ne dañoo réer mër bu ñu sukkandikoo nag ci benn CD ma ngay xam ne ne am na lu téeméeri nit yu réer ñu dem ba Soudan ka fa nekkoon njiitu réew ma di Omar El Bashir jamono ji nag yóbbu nañu ko ci benn kaso bu nekk ca xaatum ay fan rek gannaaw ba ñu ko déjjatee ca nguur ga ay soldaar yu bari daal di koy topp ba ca kaso ba sa kobbe di kaso boo xam ne fa la ñuy denc prisonniers politique yi ñu nekk ca ku ga nag di sàkku ñu daal di koy yonal ñu koy toppee ngirum tee ak ñaaw yi nga xam ne moo amoon ca Darfour ca atum 2003 am ay nit ñu bari ñoo xam ne jot nañ caa ñàkk seeni bakkan ñu dem ba Mauritanie jàngalekat yi nekk ci njàngale mu digg doomu mi nag di sàkk ñu jox leen ay weer yu ñu leen ameel ko jamono ji nag nee nañ seen i boolu ñu kaay moo fees loolee tax na nag dañoo dañoo dagg cours yi nga xam ne nag dañu ko doon amal ña ngay sàkk ñu jox leen liñ leen ameel tey ñu yokkal leen seen i payoor yu ko ak réewum France gannaaw la gi amoon ci Notre Dame bokk ci bërëb yi nga xam ne nag waa réew ma dañ koo fonk lool muy cathédrale bari woon na ay xibaar yu ci jóge ñu ko doon jaarale nag ci réseaux sociaux yi te ñenn ñi doon wax ne bala di am lu mel ni benn nataal Fall moo taxawoon ca kaw mbir yooyu nag kilifa yi weddi nañu ko ba mu set ne loolee dara amu ci jërë ngeen jëf mbokk yi li leen indi loon ci xibaari bitim réew